Euh, jërëjëf jaraaf seen ñu ngi gërëm ñi fi teew ñëpp suñu naa ndooy mu ngi nii toog représenté fii les délégués de quartier de Yoff mu ngi ànd ak tonton euh, Ndiaye Diagne ñoom ñu nekk ci délégué de quartier yi organiser leen jiite leen ci commune bi yëpp bu Yoff ñu ngi fi nekk ak suñu ñaari mag euh, mbay Ndoye ak Malick lay ndoy kii yore école Baye Abdou Seck non là ah kii yore école Jamalay ñu fi nek aussi ak suñuy pap donc ay ma mu ngi ni toog ak euh, tonton Sow ñoom ñu nekk ci jàmburu Yoff alors ñu gis fi Alsane Diène nek le secrétaire général adjoint bu APEXI alors mu monsieur Chomban bok ci staff hein CG Abdou Seck. CG bu Abdou El Hadji Abdou Seck alors. mu am nag ñoo xam ne ñu ngi toog xale yi fii ci yow ñu fi nekk nekk secrétaire général staff administratif bi nga xam ne moom la ñu pencum Ndakaaru affecté fii ñuy liggéey ak ñu nekk ay mobilisateur communautaire Mamadou Assane Diène

ñuy gërëm bu baax aussi suñu partenaires yi nga xam ne ñoom la ñu àndal ñuy jàppale ci wasaare li nga xam ne moom la fi nar a parce que jot gi demeewul noonu xam nga heure bii nii heure de travail la ñu bari dañuy war a mën a bëgg ñëw fii mais jot gi moo leen ko dul may mais suñu ko filmé nii wasaare ko ci dëkk bi ku nekk dana ci mën a am xam la la fa wax mais mu am ci xalaatam bu ëllëg bu ñu àddoo rek mu xam lu ko ci war mu man ko mu mën ko mu mën ko def. le président de Sébi Sébi Xotaan. ñu and ci ak ñom Mbacke gey nek secrétaire général Ousmane Diallo bu Dalifor nek le trésorier général ñu and ci ak ñun yenen PCA yi nga xam moy bu Wakam Pape Ousmane John bu Yoff di nek man mi ak bu Cambérène di Seydina Issa Lay Diop dañu am ben CA fédéral bo bi 11 personnes lañu ku nek dafa envoyer ay ndawam ñuy tok di saytu liggéey bi nga xam mom mo wara jëm ci juroom ben gox muy euh, Cambérène di Géejawaay di Dalifort di Wakaam di Sébikotane ak Yoff dafa mën a ku ñuy liggéeyal muy partenaire bu ñuy wax Child Fund Sénégal daanaka lu ëpp ci moyens yi nga xam ne moom la ñuy moom moo koy joxe dañ ciy waxtaan ba jubboo mu jox ñu bu jëkkoon am na nu mu daan doxalee lu ëpp ëppoon ci li mu daan def da ko daan jëmale ci ay nit ñu koy tuddee service direct mais ba ñu xaymaa système boobu pour rappel liggéey bi ay ati at ci gannaaw la daanaka depuis quatre-vingt-cinq programme bi mu ngi nekk yof ñu koy développé te programme yu mel nii bu demee ba jëmmi jamono dañ koy xayma suñu ko xayma xool yan jàngat moo si juddu ñu def ay recommandation ak ay orientations yu yu bees loolu moo jur tey jii loolu ñuy tuddee service direct lu ci ëpp dañu ko xaw a del delloo gannaaw ñu ne daal nañuy privilégier les services collectifs. ngay seet rek sa yéene ni mu toll mais aussi sa mën-mën fu mu toll te nañ ñaan yàlla peut-être yàlla mën na maye dans un futur proche ñu am leneen loo xam ne dafay gën a renforcer kii bi mais daal ñu xam ne ñaari photocopieuse bi marque bu baax la Issa dina si ñëw tout à l'heure yàlla may na ma ma seede fekkee anam bi ñu jëndee ci fédération Pencum Ndakaaru wax dëgg yàlla. rigueur bi nga xam ne ma koy ma koy gërëm bu baax di ko sant Issa Dia nekk le manager la fédération pencum Ndakaaru saa yi ñu waree jënd yàlla def na commission boobu ma dama ciy liggéey ak ñoom mais àq bi mu ciy joxe néew na nga gis ko kuy liggéey ci bërëb di jox àq boobu ak personnel ba fa nekk yëpp comptable baak personnel administratif ñëpp wax dëgg yàlla bu dul benn du ñaar siège nañ ci commission bi liggéey ak ñoom dimanche sax dañ koy liggéey ak ñoom léeg-léeg pour seet mais té lepp liñ ci jub rek moy lañu jënd mu nekk lu baax li moy liñu ñu jënd di jox askan wi mais lo ci gis rek da kay taxaw ba nga xamné té limu ci bëgg rek moy nga am qualité bi nga xamné kuy def lolu nak. je pense que ni nga mëna fay rek moy buñ la joxé matériel bobu nga sam ko parce que matériel yépp quelque soit la qualité soko samé rek jeexital ba dana dana ci ayib waaye nag mënuñu dajé ci lu melni te duñu wax aussi ci fédération bi demb rek ñu ngi woon géejawaay nekk fa ak ñoom isa ak suñu yeneen naatu yi lépp jëm ci rek ci ni ñuy gën a jumtukaay ni ñuy gën a euh, ñaaxe ni ñuy gën askan wi ci ba nga xam lañ leen sant muy taxawaay bi ñu war a taxaw en tant que gouvernant au niveau au niveau local mais ñu mën ko taxawee parce que dafa tiis nga war wax wala nga war dox ci turu askan wi yow lu ñu wóolu dafa natt bu metti la sa yéene nga yor mais est-ce que na nga koy waxe baax na est-ce na nga koy doxee baax na yàlla rek moo xam moo tax fédération bi di jox ci toujours di napp toujours di di gën a dooleel ñi nga xam ne ñoom la ñu fal pour que nañuy taxawee ñu bañ jiital seen bopp ñu bañ a gis seen bopp ñu dañu dañuy jiital askan wi parce que wéet gore wéetal ko gore loolu la ñu wax te dafa yombul di nga ko bëgg sax mais léeg lekk la lay wër mën na la noot ba sa bakken man la loolu duñ ci jox démb ñu ngi woon géejawaay dajale fa waa Dalifort dajale fa waa Sébikotane dajale fa waa Guédiawaye pour di leen gën a ñaax gën leen dooleel ci wàllu gouvernance leadership ak lépp lu jëm ci nu ñuy saytoo bëgg bëgg askan wi parce que yéene bi rek doyul foog nga xam nakal ak nan la loolu daf nañ ko fii yoof jeudi euh, si vingt vingt deux ak vingt non vingt trois ak vingt fii ay yoof defal ko waa yoof waa Wakam ak waa Cambérène ñu dajewoon fii ci saal bi loolu fédération bi si la dëkk li waral muy def noonu nag fédération bi dafa toll ci association association yi nekk ci gox-goxaan yi dañ leen war a gën a dooleel bu njëkkoon ñi doon militer ci association bi mooy ñi nga xam ne seen doom rek ñoo nekkoon ci programme bi mais léegi dañ ko gën a yaatal dañu bëgg mu am sympathisant ñu ñëw jàpp ci man dey ba ma si ñëwee ba léegi lu baax rek laa ci gis jàng naa ci lu bëri parce que am na loo xam ne lii ñu ngi koy côtoyer tous les jours mais xamuñu ne lii am na ci dëkk bi altine bii di ñëw nañ fi tout à l'heure dinañ leen jox ki euh, lettre invitation yi dina war nañ fi woote waxtaan boo xam ne fi lañ koy defee à 17 heures ñu ngi waxtaan ci wàllu aleykum asalaam ñu ngi waxtaan ci naka la ñuy waxtaane fii ci gox bi pour taxawu xale yi nga xam ne ay tout tànk lañ seen i yelleef léeg-léeg ngeen gis fi koo xam ne dana dana am doom doom ja judd mu ngénte que ci xaalis bu bëri fatika déclaré état civil xale bi dem ba dugg école directeur coono ngeen ci daj bari na ñu dem école wara tiji wala mu dem ba war def examen ñu xol dossier ba duñ fa fekk dar te pourtant bañ koy ngenté dafa def nañ ci xaliss bu bari ta xam def na dem déclarer ko mo gënoon a yomb lolu léeg-léeg nga gis ci ko xamné xalé bi alors euh, sag na nañ ko ba nga xamné gis nañ ci ka bo xamné dañ ko waroon xarafal ñu bayyi ba mu nekk mak ñu dañ ko fàtte xarafal amna fi asan xam nga loolu fu nit ki la dëkk bi ñu nekk dafa bari ay pesanteur ku góor dem ba tollu benn âge bi ñu ne dañ ko fàtte xarafal xam nga loolu tooñ nañ ko tooñ nañ ko te loolu mën na ko gaañ gaañ boo xam ne dina dina ko topp du gaaw a du gaaw a du gaaw a wér yaa ngi dégg léeg-léeg xale di jàngi mu échoué parce que tout simplement nañ ko waroon a taxawoo taxawuñu ko noonu du wàcc ba nit ne ko ma xool sa kay ba xam na note yi baax na wala baaxul dañ koy yebal rek muy dama ko ñëw di di jaabante rek mais kenn mësul tijji kayam xool ndax kay ba la sa nekk baax na wala baaxul léeg-léeg nga gis ku jur doom du xam ban classe la doom ji ne ñun ñëpp lay dal ñun ñëpp lay dal ñoo koy def te duñu ko tey sax parce que dañuy foog na loolu amul solo te xale bi loolu nga koy ignoré noonu si ñàkk toppatoo ñàkk a xam moom ci lu mu ne mën na dem ba day tax moom mu weddi boppam su weddee boppam dootul gëm boppam mu échoué ñu ne ndey ja la ñu ne bàyyi ba la fekk nañ ko waroon a taxawoo ci ay yelleef loolu la ñu deful loolu nag daf ci am banqaas bu am solo boo xam ne bii fédération pencum ndakaaru def ciy liggéey altine fii ci yoof gox yëpp def nañ seen bos ñun daanaka ñun rek ñoo ci des dañu war a waxtaan d'abord naka la ñuy demee ci loolu bu ko defee kuréel yi ko seex yëpp ci yoof kilifa aaday kilifa sur le plan administratif commune bi sous préfet bi yooyu yëpp dañ ci war a ànd ak ñoom délégué de quartier yi ak képp kuy mouvement bu nekk ci Yoff Magu Kids bu ñu waxee kuy toppatoo xale yi loolu kenn warul ci jiit ñu toog waxtaanee loolu naka lañ koy seetoo ci Yoff naka lañ ko war a a mandargaale ñii jël xale yi tuuti di leen daf yenn coono yi te ñu waroon jàngi ñun ñu waxtaanee ko rek kenn neewul dañuy weddi diine kenn neewul dañuy weddi aada mais dañ ne ñu seet jamono bi nga xam ne moom la ñu toll naka la ñuy méngale loolu ñu hérité muy aada naka la ñuy méngale loolu nga xam ne moom la ñu diina sant bu ko defee xale yi ñu mettre leen dans de très bonnes conditions ba nga xam ne danañu mën a jàng réussir dans les études parce que bu ñu réussir communauté bi moo que fii xale bu fi réussir benn niveau bi dafay dépasser famille am dafay dépasser quartier am dafay dépasser xeetam dëkk bi yëpp ñoo koy jariñoo du mën a dem ba Afrique di ko jariñoo wala addu addu àdduna bi loolu bokk na ci li nga xam ne bëgg nañ daal ñi ñu jàppale ñu si ñu bàyyi ci xel bu baax ñu ngi teg ay programme avec dëkk bi ndóol gi dafa metti loxo yi jotatul gannaaw te kii lay jox di la may wan la nu ñuy amee moo gën a wóor moo tax jigéen yi nga xam ne ñoo nekk ci programme bi seeni doom nekk ci organiser nañ leen ci ay programme avec ñuy lebalante seen biir wax nañ ko fii keroog wax dëgg yàlla am nañ ci loo xam ne rafet na njort ñu bari ñu ngi ci nekk xam nga nga tëj sa kër rek dem si demalante boobu ñuy demalante daf lay defar boo toogee sa kër say problème daf lay mujj gaañ. ngay dem si nit ñi di waxtaan ak ñoom loolu rek am na lu muy jur loo xam ne lii ñaar ñaari neexul teg loxo mais lu am solo la ci nit muy équilibre sur le plan sociale mais ngay am ñaar téeméer téeméer di natt soo amee sa soxla yi ndaw nga faj kenn du la xamal loolu mu ngi law te ñu ngi ñaan yamalew ñu ko rek ci ñi nga xam ne dañu am doom ci programme bi ñu ngi koy tijji képp koo xam ne kii da nekk jigéen nekk ci Yoff fii bëgg a yëngatu na jege boo ñëwee ci euh, kii bi siège bi danañ la expliquer loolu nu ñu ciy bokkee bu ngeen organiser wu ca gox ba ngeen ne alors ngeen dem ñu tegal leen condition yi conditions yu souple conditions yu flexible jigéen ñi ci nekk ñëpp gisaguma ko yuuxu bàyyi ñi ci nekk ñëpp ñu ngi woo seen nawle yi dañu bëgg nag démocratiser ko mooy képp ku yeewoo yoof nga xam ne loolu mën nga ci dem demal nga ñëw fii ci siège bi nga demandé pap Amadou taal wala Mouhamadou Ndiaye danañ la jox tegtal yi ci ne ñu walla fan ngay dem ba nekk ci. am na activité bu ñu war a tàmbali muy les groupe de jeunes xam nga fédération bi de manière générale mu ngi toppatoo xale yi am 0 24 ans mais dañ ko def ay tranches d'âge tranche d'âge yooyu ne daf ci am ñi nga xam ne ñoo gën a féete ndaw muy de 0 à 3 ans mu ngeen seetloo xale bu am diggante 0 ak 3 ans ci kër yi.

ci xel la ci ki la ci comportement daf leen di topp ba nga xamne dañuy dem ba nek mak léeg nga gis kilifa dem ba nek mak mais nga gis ne ki amna gañ bu ko topp mu ko depuis bama nekké xalé si nañ ko doon topato am nak dépense yu am solo wax deug yalla man léeg-léeg damay xaw am kersa parce que nga xam xaliss biñ ci def ni mu xéré bañ koy jënd nga gis gelai bañ ci daj jël ay jël ay expert ñu tan ñu né no xéetu xéetu xalé bi xéetu fowukaay bi la wara a mu ngi fi ñu tek day war a tàmbali groupe de jeu loolu ci ñu ngi koy démarré fii ci kër euh, suñu mag Ousseynou Thiom kër Pape Diogal ñu ngi koy gërëm di ko sant parce que bi ñu ko waxee daf ñu nangul conditions yi ak euh, accueillir ñu chez lui pour ñu mën ko fa def xale yi dañuy dañuy ànd ak seen yaay bu ñu ñëwee toog ñu jël jeu yëpp teg ay jeu yu baax la yoo xam ne expert moo ko tànn ñun tooguñu nii rek si suñu coobare def ko ku ci nekk ñu nga xool jeu ba nga bëgg nga dem ñu fo xamante. lolu da fay wadjal ñu amé 3 ans ñu mën leen yóbbu ci sédib bi continuer wadjal bi de sorte que bu am 5 ans wala 6 ans pour dem école fekk na xalé bi amna luñu lu ñu amna amna, amna lumu lumu lumu wané na lu mu lu mu lu ci melo boo xam ne bii boo ko très rapidement day forger sa personnalité réussite am day yomb à l'école lolu aussi vraiment nekkoon na loo xam ne mënuñu ko woon wax ci ki bi prétexte lay don toujours suñu amé occasion yu melni parce que ñun li ñuy def. ñu ngi koy def ci label communautaire label communautaire na boo ci yëngatu da ngay fàttaliku ne utiliser loo sa tur waxuñu association diw dañu ne association jàmmalaay yoof xool leen ñaari baat yooyu kan moo mën a wax ni moo ko moom jàmmalaay yoof boo ne ci tur woowu ngay dox donc da nga amel nag rendre compte waa yoof te rendre leen compte bul bàyyi ba pare da nga leen rendre compte ci bii ngay def lo xalat nga wax ak ñom ñu wax la ci liñ ci xalat su fekke da nga joom nga nangu ne yow sa xalat baxul nga jël sen xalat nga dox ci and ak ñom bu ngeen paré yeen ñepp ensemble ngeen rendre compte ñun système bobu lañu bëgg fonctionner muy management collégial amul tabu lepp lañu tek ci table ci fi ma tok ni li ma tok ni di ko wax ni ko awon ci staff bi day ñew man ko wax parce que duñ la rek nga defal ya mom ñin lo neex def lo ci nek da ngay waxtaan ak ñi laaj seen xalaat suñ la nee taxawal nga xam ne da nga war a taxaw bu ngeen ci tolloo def ngeen ànd def ñëpp bokk ko ngeen baal ma xaw naa gudd mais lii laa ne woon naa ko leeral ngeen xam illawu daja bi mooy ndimbal bu jóge ci fédération pencum ndakaaru mu ànd ci ak Child Fund Sénégal ànd ci ak inspection éducation bu bu Dakar euh, Almadi alors ñu ne nañ ko jox euh, école jàmmalaay ak école Baye Abdou Seck mais ñoom aussi ñu jox leen ko ci kaw ñu yombalal seen naatangoo yi ñu nekkal bu ñu soxlaa ñu wóolu nañ leen ci loolu parce que xam nañu déjà ñoom wóolër bi ñu seex parce que ñoom ñëpp daanaka ay ay nawle la ñu di nekk di liggéey ci anam bu rafet ñu mën ci ànd bu yàlla àndee leneen ñu xam ne noonu la def mais itam daal ngeen xam ne fédération pencum Ndakaaru mu ngi gën a ñaax askan wi pour ñu gën ci jàpp dañu xam ne xale yi tax ñuy wax bu ñu mënaloon seen bopp ñoom ñoo fiy toog Natu bu reey la ngay wax ci ko xamne bu meuna a doon boppam moom moo fiy toog donc yene bi doyul nañu gëna a vigilant ci ni ñuy waxe nañu gëna a vigilant ci ni ni ñuy defee dañuy dañuy def introspection di biral ne li ñuy xalaat ni ñuy doxale mengon ak li taxone ñu denk ñu lii daal euh, jaraf mom la ne woon naa bu ko defee dañuy jox kàddu bi suñu papa abdou naar bu ñu jox kàddu bi représentant wu APEXI bu ñu paree ñu jox kàddu gi kii di directeur bu école Jamalai, jox kàddu gi directeur école euh, Baye Abdou Seck alors bu ko defee bu ñu paree loolu lépp nag ah, ñu war a mën a tëj ak jaraf seen i tëjal ah, ba pare ñaanal ñu mais laata ñuy def loolu da ngeen may may ma jox kàddu gi Issa Dia mi nga xam alors moom moo fi toogal alors Fédération Pencum Dakar au niveau de l'ambassade. c'est vrai que dañu fi ñëw pour juste faire fekkee cérémonie bi parce que fédération matériel bi bi ñu war a joxe nii ko jëndé yàgg na parce que dañu né dañuy jënd matériel bo xamné dañuy jappalé école yi pour. mu mën a feeñ ci résultat wu jàngu xale yi ci année scolaire ren bi mais bu ñu organiser cérémonie bu ñuy joxee euh, matériel bi ñu organiser ko mois de mars mën na indi lañ ci lañ ci bopp nit yi ne mars de léegi école tëj den xamal ne matériel bi bañ ko jëndee depuis décembre jënd nañ ko fédération jàpp bés ne nañu ko woo inspection yëpp joxe leen ko fédération association yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci fédération bi ne bu ngeen bëggee nit ñi xam solo yi li ñuy def da ngeen ñu koy jox ñun association yi ñu woote ñenn xam ne ñooy acteuru éducation ñun ñu joxal leen ko suñu bopp waxtaan ak ñoom ci solo yi lii loolu moo indi matériel bi décembre. ba mois de mars ñu doog ko joxe loolu laa bëggoon rekk leeral lii dafa bokk ci ay protocole yu ñu signé ak IEF yi maanaam comme ni mu ko waxee inspection de l'éducation et de la formation bu bi nekk Almadi dañu signé moom protocole boo xam ne dañu ne leen ki ñuy liggéeyal muy Child Fund dafa ne depuis fanweeri at at mu jot ñu yëkkati ay cahier tànn ay xale ci dëkk bi jox leen ay kay